or maa ngi wër définition bi lien lan ngeen di déggee ci connexion douteuse ba ngeen tudd ko ba ngeen sukkandiku ci yooyu noonu ba reporter suñu élection alors que le 25 ñun on aurait dû en finir avec cette élection là fal suñu président instant ñu ngi lijjanti leneen. ñu waajal euh, peut-être euh, deuxième tour bu amee wala dara walla sax jàll na peut-être ñu dem xool nan la président Macky Sall di quitté suñu réew. Euh, jox suñu lenge keneen le 2 avril mais malheureusement jox ngeen ko prox ndoll mu def li mu war def donc vraiment ñu ngi xaar ay réponses par Euh, jëwriñ da nga bëgg am loo placé ñu jox ko mu leeral ba pare waaw euh, c'est-à-dire Serigne Serigne Cheikh en fait c'est ça notre problème au Sénégal c'est-à-dire que jamono boo xam ne on a le savoir xam-xam dafa nekk ci ak porté de clic su ma nee euh, ku mel ni Karim Wade nga xam ne français d'origine la bu ñaanee bu dee dama bëgg a ba bëggatuma nekk français seen charte le code de la nationalité français moo wax ne dama leen xool. moo wax ne bu ko waxee rek il est plus français. boo demee ci Google nga tapé qu'est-ce qui prouve que tu n'es plus français ñu ne la attestation de renonciation à ta nationalité. et encore une fois on parle mais mais décret c'est c'est pour d'autres cas de figure. koo xam ne sa jabar moo tax nga nekk français. wala euh, sa jëkkër moo tax nga nekk français. wala nga nekk français à ta hmm. majorité. Okay. comme Sénégal. Sénégal boo nekkee Fran eh, boo nekkee sénégalais boo amee majorité nga am 18 ans boo li tëggu ci kaw nga am beneen nationalité su suñu sart réew mi dafa ne yow dangaa ñàkk sa nationalité sénégalaise nekkatoo sénégalais te bëri na suñu suñu suñu du am loolu mais les gens ne par pas lee les lois toujours suñu waxtaan yi lu tax du mun a jox du mun a baax trop te ñuy nekk fii di di di nekk di tur lëndëm c'est parce que du ñu dem ci source bi lire lire texte yi kon état lu tax mu jël décret. alors que administration doy na waaw loolu expliqué naa ko sax sànq peut être comprendre loo. Hmm. Karim bu mu déggee nii instant bi gars yi dañu ne dañu bëgg a sukkandiku sur le fait que amul décret. Hmm. donc ñàkk décret boobu mooy seen prétexte. Hmm. moom la ñu bëggoon langaamu pour éliminer ko. mu ne comme par principe de précaution comme nii waa PASTEF def ñu ne dañu fexe ba kenn ci PASTEF du bokk ci élection yi waa PASTEF dañu seen jël seen ay candidats candidats yu bëri. ñu dem euh, présenter wu c'était pas nécessaire mais par précaution comme dañuy am affaire à des gens yoo xam ne ñu leen ñu par précaution comme ñoom lu ñu ma laaj qui peut le plus peut le moins li ma lu ñu ma laaj loolu man mun naa ko am moo tax mu dem jël loolu pour ñëw jox leen daf on pouvait considérer ça comme complément de dossier à la limite parce que man su ma jëlee sama parrainage ma ne ma ñëw déposer par exemple ñu ne ma 44 216 pare minimum ngay def su ma déposé quarante quatre mille deux cent seize su matul mu am doublon lu ñu may wax. complété dañ ma ne demal complété. mais doublon yooyu ça veut dire que man def naa fausse déclaration. parce que ñoom dañ ma laaj quarante quatre mille deux cent seize au moins ma indi leen quarante quatre mille deux cent seize yi mu am dix mille doublon donc normalement dañ ma war a tëj. et puis il faut que ñu waxante dëgg conseil constitutionnel du atte du comme cour pénal c'est pas des juges. ne Sénégalais yu bëri boo déggee conseil conseil dañuy yaakaar ne ay ay attekat ñoo fa nekk c'est pas des juges pénalistes mm-hmm. c'est-à-dire que dafa am li nga xam ne moom mooy pen eh, juge pénaliste ñi bëri ci ñoom jaar nañu nekk ay juge pénaliste xam nga boo nekkee juge pénaliste da ngay réprimer mm-hmm. yow tu as menti wala li nga def ni jaarul dama lay baj loolu ça c'est du pénal mm-hmm. mais lii conseil constitutionnel dañu ne sax conseil ñoom ay ay conseil ni ñu koy waxee français encore. dañuy ay yedd dañuy joxe ay yedd dañuy yedd. ñoom ay décision joxe nag. non non mais ça c' <laughs> encore une fois il faut qu'on se comprenne. c'est le conseil pose problème. je dis c' est le conseil constitutionnel. Oui. le conseil économique et social environnemental. Mm -hmm. qui donne aussi des avis. mais comme c' des sachants létat du Sénégal mënul def lo loo xam ne c' est contraire à leur avis. c'est pour ça que ça s'impose au pouvoir public. oui mais ils sont pas là. pour dire que yow nit ku baax nga. Mm. doo nit ku baax. non non non jugee wuñu quoi xam nga c'est des juges politiques. constitution la ñuy protéger en 2019 en est-ce que le président euh, euh, Karim en est-ce qu'il avait renoncé à sa nationalité. a fait. non en octobre non en 2019. non dama lay oui. octobre comme dafa toog deux mille dix neuf deux mille dix huit ba deux hmm. gars yi génn ñu décret bi. moom moo tax mu dem ci excusez mu dem ci euh, consul bi ne ko dama bëgg ngeen jox ma sama attestation de perte nationalité. Hmm. dama ko soxla. mais ba 2023. ñu jox ko non non ñu jox ko ñu jox ko attestation de perte de nationalité. mu ñëw déposé ko. mu ñëw déposé ko donc même su fekkee sax dañuy ne supposons que même. gars yi lu ñu wax mooy décret bi mooy mooy mooy mooy mooy normal mais qu'est-ce que le code électoral dit hmm. code électoral dafa ne kenn du nekk candidat kenn du nekk président du Sénégal soo amee ñaari nationalité Tambo 2011 là je crois hmm. bi ñu daan def loi bi y avait des débats qui sont posés où les gens ont dit que la loi elle pas précise nit war na mën a xaar juste à la veille de l'élection pour ñëw prouver ni n'a pas la nationalité qu'on impute parce que le but ce n'est pas doo nekk candidat ak deux nationalités dañ la ne doo nekk président hmm. donc comme ñoom am nañu preuve ne kii du français mais wax dëgg yàlla dañ ko waroon bàyyi même képp ku xam lan mooy conseil constitutionnel tout le monde je crois que du Ndoye wax na ko c'est sévère c'est sévère parce que dañ ko sanctionné te c'est pas du seen cër parce que sanctionné woo Karim mais ce sont les militants de Karim nga sanctionné ay am na mu ëpp na 500000 personnes yoo xam ne peut-être ils ne répondent par Karim Wade mais ñoom nga sanctionné tu n'as pas le droit te lii lay indi problème yii lay indi parce que jusque là parti démocrate sénégalais ak ses alliés mais macha allah ñu ngi def quelque chose comme qu'on appelle la pédagogie ils ont des ils ont des problèmes ils sont victimes d'une injustice ils ont des droits qu'ils défendent te benn yoon waxuñu gën leen ci mbedd donc ça veut dire qu'ils ils utilisent les instruments de la République c'est-à-dire que quand même il que les Sénégalais soient raisonnables lu ñu def nii léegi dañ ñëpp dañ leen war a encourager ci loolu parce que ñoom nee nañu waxuñu ne lii dañ koy am par force waxuñu ne su amul dañuy taal dëkk bi dañuy ne lii suñu droit la lii yoon may duñ lañ ko topp jusque là c'est ce qu'il fait le conseil le le le, parti démocratique sénégalais et ses alliés duñu ay juges conseil koy assemblée nationale moo waroon def as eh, enquête parlementaire am nañu droit def enquête parlementaire ba leeral Sénégalais yi. absolument wala juge jël dossier bi mu autosaisir wala ñu plainte loolu mooy am mais vous ne pouvez pas demander ay Sénégal ay parti démocrate sénégalais il faut nous dire les preuves mais à quelle qualité on va doonee donner les preuves. le public sénégalais n'est pas des juges. Non, on a dit si vous aviez les preuves. Mais ce n'est pas à vous de le dire c'est au juge. directement parce que l'affaire va finir devant le, juge. nous nag on fait de la politique. non, on fait de la ah, politique. pourquoi demuñu. tribunal. mais c'est très simple on n'avait pas le temps suñu demoon tribunal instant bi élection jeex na suñu candidat du a dit et on yoon. mais lépp loo xam ne yoon may nañu ko nañu ko def pour que élection bañu am Sénégal tant que Karim Wade bokk ci ça aussi c'est très clair on l'a dit clairement donc lépp loo xam ne yoon may nañu ko dinañ ko def mais il faut pas que Sénégalais yi toog bëgg ñu laaj des co des des yoo xam ne c'est pas à eux de demander na juge que les juges nous demandent c'est ça qu'on demande au au ça comme ça que ça se passe donc s'il y a des problèmes nit bu ñu ko tooñee doo ñëw ne ko mais est-ce que sax dañ laa tooñ donc pourquoi ñu ñu laaj lee génn leen preuve def leen lii c'est pas c'est pas normal dañuy tooñ man je suis j'ai toujours été depuis 2007 sans être du parti démocrate sénégalais dama mus a soutenir Karim Wade mais Karim bu mu duggee kaso ba ma koy défendre ñi bari dañu ma doon wax ne bàyyil justice mu def yoonam waa waa kër Khalifa waa kër Sonko Khalifa bu ñu ko bu ñu ko bu ñu dal ci kawam dama ko doon défendre ba ay gars di ma wax ne léew noo mën a défendre ñii que Sonko bu ñu ko amoon bu mu amoon problème tam parce que il a des droits droits yooyu dañ ko salfaañe man ñëw jàppale ko c' est ça qu'on doit faire dans ce pays là mais mënuñu toog ne kii ba pare mu nekk ci métit ah ñu koy toroxal ba pare ay population wala askan bi di ñëw encore ay journaliste ay chroniqueur di ñëw di gën a yokk toroxal boobu yërëm mais da ngeen war a yërëm waa PDS non non non parce que ñun yërëm kenn xam nga lu tax yërëm kenn non ñu ah kon non amoo xool yow yow nee nga non dafa dafa nee nga amoo xool nee nga on n'a pas à juger waaw nee nga on n'a pas à demander de preuve donc ñun tamit amuñu di yërëm wala ñàkk yërëm non non mais loolu laa lay expliqué xam nga ñàkk yërmande bi mooy ñun li ñu wax mooy ñàkk yërmande bi mooy yow man li ma wax nga wax parce que man dama la ne waaw vous aviez l'occasion de judiciariser l'affaire. on ne le fait pas. vous fera pas. ñun dañuy politique voilà ma ne. sur le plan politique. c'est ça que vous avez dit. avec la commission d'enquête je n'ai pas dit que vous n'avez pas le droit. Cheikh ce n'est pas commission d'enquête du moom moo tax euh, repousser élection yi tu le sais. c'est pas parce que ñun ñu def commission d'enquête loolu taxul ñu repousse ñu dàq élection yi. ah parce que dañuy def beneen initiative parlementaire beneen initiative pour reporter élection yi. proposition de loi. proposition de loi ci kaw proposition de loi boobu la président de la république sukkandiku pour dax élection yi. président nee na yéen yéen a def ay accusations de corruption. di wax ay kii on se comprend on se comprend. man li ma lay wax c'est le prétexte. très cher mm-hmm. man je suis scientifique. Mm-hmm. man lépp li may wax dama koy tënku ci te tënk ci kaw des faits. li am. Mm-hmm. la réalité mooy président de la république ci décret qui proposait le report des élections ci kaw la boobu la sukkandiku pour reporter les élections et c'était pas la commission d'enquête mais aujourd'hui nga ne lu tax ñu xaar instant bi mais audio yi amul woon avant audio yi ñu ngi soog a génne. ah mu ngi soog a génne. ñu ngi soog a et puis su ma la déggee nga ne. démb man fi ma ko gisee démb lañ ko dugg. voilà mais soo ne léegi mm-hmm. euh, euh, audio yi dañ doon wax deux léegi audio yi on a dit quatre audio yi ñun waxuñu ko. li ñuy wax foofu du ñu du ñun sa confirme peut-être ce qu'on disait peut-être que li ñu doon wax on était en dessous de la de la réalité donc audio yi preuve la pour ñun su fekkee am na su fekkee li ñu wax voilà suñ ko authentifié ba pare mm-hmm. loolu liggéeyu juge àttekat euh, mm-hmm. ñoom ñooy jël dossier bi authentifié voix yi su booba su ñu nee voix yi du voix juge yi on fait notre amende on fait amende honorable on fait mais pour le moment suñu droit la ñun on ne fait que revendiquer nos droits le parti démocrate sénégalais ay droit am lay laaj loolu je pense que sénégalais war nañu ko mooy may parce que bu leen fàtte ne le parti démocrate sénégalais et ses alliés mais ils n'ont pas peur ah mun nañu wàcc dëkk bi itam di di xeex dans la rue mun nañ ko def parce que on sait le faire parce que on a les bras pour ça mais lu tax defuñu ko parce que on essaie de respecter les sénégalais là tey sénégal dañoo sonn donc ça veut que dañuy def dañuy dem ba jeex nag sur le plan lépp lu lu yoon may loolu dañu ko def maintenant dire que le le Macky Sall xoolal Macky Sall suñu noonu la. Hmm. amul ah kenn non amul kenn ci Sénégal. Ah. koo xam ne def nga trois ans et demi nga nekk homme politique trois ans et demi kaso. Mm-hmm. nga génne ba pare gisuñu benn benn kii ñu tuumal la kon la ne la ah, injustement nga dem ba Nations Unies les Nations Unies cassent l'arrêt de la de la de la CREI moo tax su ma déggee ay nit ñuy wax CREI.

loolu laa bëgg Sénégalais yi xam ko. c'est une victime mais man d'accord naa yow xam nga man wax naa la man la en 2019. ouais base yu ñu éliminé Karim Wade. c'est des bases yoo xamante ni. non mieux je vais te donner je vais te donner une information que tu connais certainement bi nga xam. Hmm. dañuy bi ñu demee tribunal ba CREI yi daaneel ko. Hmm. dañoo fàtte ne dañoo fàtte ñàkkloo ko ses droits civiques. Hmm. el L57 du code électoral dafay wax ne tout sénégalais ñoom. benn veyu benn veyu magal la. 2018 bi ñu xamee ni léegi amatuñu pexe pour empêcher Karim mu ne candidat ñu def seen seen réunion assemblée nationale changer loi bi au lieu ñu wax tout sénégalais ñu ne. tout sénégalais tout non tout électeur. Hmm. loolu moo tax léegi jafe-jafe yi ñu am ci tribunaux yi ak politiciens yi ñoom xalifa ñoom Karim yëpp ñoom Sonko. lii moo tax hmm. mais le fait que nga am problème ak justice mais justice mu daan la mu bañ la daan c'est pas grave hmm. mais à partir du moment ñu changer loolu rek pour éliminer Karim ci la ñu indi problème yëpp mais mun naa wax ne c'est yo modification loi boobu moom moo indi les morts de deux de mars 2021 ak juin 2023 donc ça veut dire que il faut que les gens aussi réfléchissent parti démocratique sénégalais parti d'équilibre la munoo nekk ci réew ba pare nga am des des des des forces tey tey je je n'ai rien contre l'APR le Benno awma rien contre le le le PASTEF mais ñaari yi c'est deux forces radicalement opposées du ñu laalante mais donc su amee loolu ci réew pour mu ñu indi eh, éviter fitna ci réew boobu il faut que mu am de eh, force yu mel nii parti démocrate sénégalais. nga xam ne ñii nañu xam ne suñu àndee ak ñii nii nañu xam ne c'est normal ñu gañee leen. wala su demee fii ainsi de suite loolu day permettre suba su ñu defee élection élection nit yi mun a nangu les résultats mais fu ñu nekk nii Sénégal loolu la ñu fàtte di wax sénégalais yi bu ñu demee élection hey Amadou Ba bu fi gagné. pourtant mun na am mu gagné normalement mais bu fi gagné dëkk bi takk dëkk bi takk parce que kenn du ko nangu. parce que la plupart des gens aujourd'hui ñi nekk ak Diomaye dañu yaakaar ne bu ñu demee élection dinañu gagné premier tour et avant 10 heures avant midi mun nañu perte mais bu ñu perte du ñu ko nangu. donc il fallait que mu am une force d'équilibre conseil constitutionnel responsabilité am elle est engagée bu mu demee ba yàq force d'équilibre boobu. ci la indi jafe-jafe yi yëpp dans tout le monde entier il y a toujours des forces d'équilibre force d'équilibre boobu boo ko yàqee rek 2019 2019 dañuy dañuy fexe génn PDS Pastef ñëw mu ñu am li ñu am en 2021 en 2023 donc tey tam on va faire la même chose on risque d'avoir plus grave que ça parce que cette fois si am nañu gaz am nañu pétrole te su booba am na ñoo xam ne seen njariñ mooy fexe ba dëkk bi takk naa di lu tuuti boobu ñu ñu xeeb yoo xam ne ay milliards yooyu ñu war a am ci gaz dañoo bëgg suñu amee milliards yooyu au lieu ñu jox ko suñu béykat yi suñu xale yi ñu jàng xaalis boobu dañu bëgg ñu jël ko dem jënd ay ganaay di reyante suñu biir il faut que les sénégalais ñu yeewu le combat combat bi ñu mené aujourd'hui c'est pas un combat pour une personne mm. c'est un combat pour le Sénégal et pour la liberté des Sénégalais ñu taxaw foofu jëwriñ Ndiassé <laughs>